Sénéinfo International. chers internautes de Sénéinfo International sénéinfo.net bonjour dalal ak jàmm si lu gën a fës si yi tey mardi 26 décembre 2023. Euh, Sud Quotidien euh, lañ koy doole Sud Quotidien moom nee na euh, la prêche de l'église donc xam nga ne si Noël la ñu jógee le 25 décembre bi passé donc loolu la lépp loolu la journal Sud Quotidien def le titre à une mu Sénégal justice et paix présidentielle libre transparence et inclusive et inclusive nee na Noël pour réconcilier les cœurs et les esprits donc le prêche de l'église donc loolu la journal bi tey xëy euh, titré euh, tey euh, dans sa une Walf Quotidien moom moom dafa ñëw si présidentielle bi mu ne Abdoul Mbaye candidat à la présidentielle notre démarche c'est le Sénégalais d'abord le Sénégal doit tout faire pour se passer du FMI donc Abdoul Mbaye moom la xam ne xam ne ñu ne la ci si euh, journal ñu des ba tey ñu ne euh, en tournée à Thiès Louga Podor Matam Diourbel Anta Babacar Ngom suscite l'enthousiasme donc euh, journal bi loolu la ñëw xamal ñu des mu de candidature rush de dernière minute au conseil constitutionnel donc candidat yi nga xamante ngi war a participer à la présidentielle ñoom ñu ngi def la ruée Euh, vers le conseil constitutionnel pour mën a déposer euh, voilà seen euh, candidature donc loolu la journal bi tey ñëw xamle le le quotidien moom moom dafa ñëw si candidature à la présidentielle rek comme ni ñu ko waxee léegi mu ne ligne d'arrivée donc ligne d'arrivée mu ne le dépôt des dossiers arrêtés le 26 à minuit donc jii la ñu arrêté la ñuy arrêté dépôt candidature yi pour la présidentielle. à minuit donc euh, loolu moo waral candidat yi dem foofu au niveau du conseil constitutionnel pour def foofu xam nga pour njëkkante pour mun a vraiment déposer li nga xamante ne moom mooy seen candidature euh, journal le quotidien ñëw di ñu ko fesal tey euh, à la une ñu ne encore environ une trentaine de dossiers enregistrés hier donc depuis démb lundi bi li ñu lu toll si trente dossiers la ñu enregistré fële au niveau du conseil constitutionnel le journal bi moom dañu ko xamal tey. dans sa une donc euh, ñu ñëw rek euh, si li nga xamante ne moom mooy beneen fànn mu ne l'ex premier ministre Lamine Loum critique le système politique donc ki nga xamante ne moom moo nekkoon ancien premier ministre muy euh, Lamine Loum moom nee na dafay critiquer le système politique sénégalais l'observateur moom dafa def gëstu bu yaatu yaatu si pouponnière Kër bu Ndella Madior Diouf xam nga ne moom moo occupé actualité bi ba tey jii la ñu war a xam moom Ndella Madior Diouf parce ko gardé woon fële. au niveau de la sûreté urbaine donc moom tey lañu war a xam ndax euh, nu mooy demee mais bu tey rek enquête bi mu ngi wéy rek ba tey ba tax na la ko si def si gëstu bu yaatu ba yaatu ne six bébé bébé décédé et clandestinement donc xale yooyu nekkoon ci pouponnière bi del ma cooju am nañu juróom benn xale yu fi faatu donc ñu dënte leen si anam yoo xamante ne waaw ñu kenn xamul la donc euh, ñu ne Ndella Madior Diop signé des actes les actes de décès à travers sa structure SOS santé journal bi ñoo xamal ñu ko mu ne l'animateur de la radio Safir FM euh, qui enterrait euh, les enfants placés en garde à vue donc yoo xam ne moom la Ndella pour xale yi xale bu gaañoo mu dem kii ko mu dem denc ko donc moom placé nañ ko en garde à vue loolu la loolu la journal bi xamal. Euh, donc euh, ñu des rek ce journal bi euh, ñu ne présidentiel conseil constitutionnel dix pièces exigées pour la validation du dépôt des dépôts de candidature donc li nga xam ne mooy candidat yi ne leen leen exiger ñu déposer dix pièces yoo xamante ne vraiment loolu mooy tax ñu mën a nangu seen candidature loolu la journal bi aussi ñëw xamle aussi des rek si journal bi mu ne. révélation su les dernières grosses prises de cocaïne nag donc jàppaat nañu temps yi ñu ngi jàpp rek ay nit si euh, wàllum drogue donc ñu ne les identités des trafiquants hospitalisés la destination la drogue euh, voilà donc loolu la ñu journal ñëw xam ne xamal euh, dans sa une. le journal Le Soleil moom dafa ñëwaat rek si église bi ah parce que par rapport ak prêche bu mu def si le 25 bi muy fête de ñu ne. célébration de la nativité paix justice piété les exhortations de l'église donc li nga xamante ne moom la loolu église bi di ñaax askan wi donc journal bi ñëw tey le soleil fësal ko tey euh, dans une ñu ñëw rek euh, des rek si journal bi mu ne Reug-Reug impérial face à Bombardier donc aussi weekend bi nii mooy weekend Noël bi hmm, combat bu fës bu gën a fës aussi mooy combat bu entre Bombardier ak euh, rëg-rëg donc ki nga xam ne ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg moom moo euh, daan euh, Bombardier donc journal bi ñëw fësal ñu ko euh, tey dans sa une ñu des rek sa journal bi mu ne ces bijoux traditionnels qui défient la modernité donc journal bi defal ñu gëstu bu yaatu yaatu si bijoux africain yooyu nga xamante ne hmm, ñu ngi koy takk jigéen ñi ñu ngi koy takk te mu nekk loo xamante ne lu rafet la bu ñu sukkandiku daal si journal bi nekk na daal à la mode